yéeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf mbëkk mi dikkati na ubbil observateur ñaari gaali locco yu bawoon Maroc wutali Espagne juróom-ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yooyu faatu nañu ca mujj ñoo yegg Barcelone barsàq la ñu mujjee ca ñooñe yéenekaay bi nañu fanweeri doomi Sénégal ak benn ñoo nga ca ñoom ñëpp ci waaxi Maroc yi la ñu des ñett ña ay jigéen la ñu ba ñu tabaske ba ca ëllëg sa journal bi nañu ca la ñu faatu ca géej ga ca ñu jëloon gaal ga wutali Espagne am na ci jenn jigéeni biir joo xam ne yàlla def na mu mucc ca ki muccagul ci mbiri yoon Le Quotidien nañu moo di doomi Abdoulaye Wade ju góor ji Karim Wade journal bi nañu fukki fan juróom ci weeru novembre gi ñu nekk dana dellu ca brigade des recherches bu Colobane réew mi quotidien nañu la ko fa yóbbu moo di leeral koppar yi nga xam ne amee na ko ñu bëri jàppe ko crime loolee tax yoon wolwaat Karim Wade nañu Karim ña ko nar a ñoo ko nar a rey ba mu dee bu doonub inde la bu ñu tekk ba tey ko nañu jàpp ne inde baa ngay folot ña war a défendre Karim Zeyed Alde bu ñu teggul seen tànk dinañu fi wax lool ko dégg jàpp sa gémmiñ Aminata Ñaan ma woon ci APEX ak Ibrahima Sarr nañu ñoom it nañu wàcc ndax ñoom la yoon di yoot jaruta yoot nañu waaxu fekk njiitu mi Macky Sall ci xët mu njëkk la soleil ay kàddoom banque yi la gàll askan bëgg ñu wàññi ndax ci gis-gisam fii ci denduk Afrique bi taux d'intérêt yeeg ni ci banque yi di doxale yëf yi teguwul ci yoon dafa dem ba jéggi dayoo ci wal fajri Macky Sall dellu si wàcc wax ja tey sàkku ci banque bu mag bi di BCEAO ñu jël seeni matuwaay ndax nit ñaa ngi bëgg a dee lu ray mbuum dee ca la wolof wax juróom-ñeenti milliards yi Youssou Ndour ne bàyyi na ko ci ministère de la culture ngir ñu tabax ci mémorial bu Gorée loolee am na ku ko wedd ci direct info ubbil journal bi waa ji Abdoulaye Mamadou Guissé la tudd di ko yëngu ci wàllu aada ak cosaan nee na ci journal bi juróom-ñeenti milliards yooye du Youssou Ndour moo ko wuti woon fi la ko fekk benn waaye bu ñu naan Amadou Lamine Sall doonoon coordonnateur bi waroon a coordonné li tabax mémorial tax yëf yi yegsi ba fii moo di nguurug Abdoulaye Wade ak gug Abdou Youssou Ndour bu yegsi fi lay fekk mémorial bu Gorée gone gi gisee noppi ci derub Youssou Ndour bi Omar Faye bu leeral askan wi jël ci Walfadjri Grand Place Omar Faye ne Youssou Ndour yàq na république bi soppi ko Dakar na door pa door miir wolof naan ko nelaw ña ko defatul ba yandoor démb ñoo nga woon ca tribunal bu Thiès mu di Cheikh Béthio Thioune ak Cheikh Fallou Ligue Nicolas ubbil populaire ke ca njëkk di Cheikh Béthio Thioune yéene bi nañu démb janoon ak secrétaire ko yëpp indi Ndakaaru directement Le Soleil nañu Cheikh Béthio démb ba muy janook sis d'instruction ba ay awakaam teewu fa woon Walfadjri Grand Place ne ko avocat yi gedd yëf yi libération nañu te nag lu ngeen ci xamul moo di sis d'instruction ba noppi woon na ngir gedd yëf yi faxasu ci dossier Cheikh Béthio ba set wecc keneen ka ne woon démb ca tribunalub Thiès di ligue Nicolas mboolem yéen ñu xëy ndool xëy dellu bi nañu Modou xarañ loo ma fa ñu bari doon séntu ma nga fa woon zosit ma nga fa woon Double Less bàyyi Triple Less di Balla Gaye 2 moom Double Less ma nga woon foofee ca tribunal ba ngir jàppale ki nga xam ne moo di Luc Nicolaï Luc Nicolaï populaire nañu fukki fan ak ñaar di altine bii di ñëw ca lay xam fan lay mujje ak yoon muy moom di Bernard Tulli seenub layoo dàq nañu ko ba bés boobee bésub démb bi ca tribunal ob Thiès ci atteb Luc Nicolaï wal fajir grand place lu ca ñu bari seetluwul moo di yëf ya bari woon na ay déba ki déba déb ak i xar xa fuufa gàllaaj yaak téere yaak saal ba ñu ne deetawaay journal bi nañu foo sànni sa bët ci saal bi gis fab sëriñ mu toog